aj ca bàkk ba jib na générique bi depart na jàngat làmb tàmbali na bàyyi ji di Père Birahim mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat fii ci wasaare làmb euh, di leen jaajëfal bu baax a baax a baax ci ànd bu rafet bi nga xamante ni yéen a ngi koy ànd ak wasaare làmb waaye wéetuma bu benn yoon ci jàngat làmb ndax bu ñu ko waxee xel dem ci télé bi Père Birahim Ndiaye décortiquer combat bi su ko defee ñu ànd gën cee waxtaan euh, indil leen làmb yi nga xamante ni jotoon na fee weesu gannaaw loolu damay bàyyi Père mu nuyoo nuyu mbokk internet wasaare làmb bi su ko defee ñu tàmbali ci waxtaan bi Père maa ngi lay nuyu bu baax. waaw ah, jërëjëf maa ngi lay dellu di wax auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. Hmm. rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi safoo si bi tudd wasaare làmb. Hmm. di leen bëggee fu ma toll wax dëgg yàlla di leen a gudd fan ak wér. di ñaan ci feebar yi fi nekk yàlla na ko fi yàlla jëlee. suñu réewum Sénégal mi yàlla fi yàlla def jàmm ak ak teraanga yàlla na fi yàlla def euh, diine. Hmm. bi barakatu rasulillah di nuyu ñëpp di ba baalu àq ñëpp di baal ñëpp nag. Hmm. di fas yéene taxawaat ak yooyu it ñuy waxtaan rek comme ni ñu ko daan waxtaanee. Hmm. Eh, combat yi fi passé comme làmb ji temps yi maanaam combat yi passé la ñuy waxtaanee ay erreurs ci ne. Eh, ñaan yàlla nag te ñi nga xam ne bëri nañu combat yi tamit ñu ñu suivre. xool ndax li ñuy wax am na wala amul. waaw parce que buñ nee nii kii juum na fii kii juum na fii kañu ka doon def loolu mbir moom dina xam ndax moom li ñu ko wax dëgg la wala dëgg. su dee su dee dëgg nañ mm. tàllal loxo su dul dëgg ne ah pardon kat li ma wax man da jiw ma fii nii laa def mm. bu boobaa ñu nit muy dinañu yokk xam-xam ñu ne ñu yokk xam-xam mm. ah mooy jëriñ ànd quoi parce que ñun xam nga parce que ñoom mbëru mag yi nag euh, li tax ma d' accord ak yow ñu def seetaan parce que ñoom li ñuy def ba ma ca tolloo dàqu ñu ma ko woon man mm-hmm. nga ma ci ëppoon wërsëg nag ëpp ma kàttan gën maa mat mbër waaye li ñuy def ci làmb dàqu ñu ma ko woon maa ngi jóg wax ne maa leen ko dàqoon parce que loolu gàtt xel la. Mm-hmm. waaye man ba ma cee toll wax dëgg yàlla boo seetaan tey fekk ñu fekk sama carrière. Mm-hmm. tubaar kàll bëri tamit am na lu ma ci yàlla mayoon. Mm-hmm. parce que Balla Gaye dem naa seeti ko. mu ne maa ngi seetaan sa ah, waaw dëgg la. am na solo loolu. guy gi tamit wax na ma ko même waaw dëgg la parce que guy gi moom moom. Euh, bi bi muy euh, bu ñuy wax ba kii Diouf. Mbaye Diouf ñu toog ma naan ko màgg bëri nga. booba yàgg na. ma ne ko màgg bëre gii ngay wax ci xale bi ma ne ah, ma ko manin bii mu am ko ci mënta xaj man manin bi dina ci daan ba daan ko ngeen foogul loolu dara dañu ci ba dëgg ni parce que nit ak mën ne nit ak fooram mu mëne ko li mu ko mëne te mëne ko na ci mel ah pour toroxal ko ca yombul parce que yàlla da ko caa booleeg ndam da ko caa yàlla booleeg sutura da ko caa booleeg teraanga parce que teraangam foofu la ko jaarale léegi ngay doomu aadama nag bu ko caa toroxal day da ngay fexe kay ba bu mu la ko def wala bu la ko defee bokk nga jàng loolu ci ne bu ma juumee ba mu am lii de dinaa fexe lii du ko def. loolu koo ci mënul mën na cee am de bon loolu la. Balla Gaye nag moom dama toog nii rek koo karaw gi rek mbër la. waaye damaa ko parce que bu kooku li mu mel ci làmb. dama ne karaw gi rek mbër la. du ma ko den di ko parce que boo gisee ma di ko wax. mooy euh, ndaanaan la ci bëre simple ndaanaan la ci bëre arène. waaw. am na solo mbokk yi bu ko defee ñu ngi ñëw ci écran bi. Mm-hmm. indi leen combat boo xamante ni combat bu neexoon na. Mm-hmm. mu dox ci diggante nees la Balagne de Lansar. Mm-hmm. ak ki nga xamante ni mooy Ama Baldé. Euh, ñoom ñaar combat boobu nekkoon na combat bu neex. combat la boo xamante ne examen la woon ci Ama Baldé waaye Ama Baldé mujjeewu ko réussir. ci kaw Ness père léegi combat boobu laa bëggoon nga wax ma ci ginnaaw combat bi muy taxaw ak bi mu taxawee ban gis-gis la xam ne nga. Euh, li naan doomi mbër jàngil ba des na la ñam day fekk na nga fooy bëree. Ama Baldé ndaw la boo gisee baay bi rek gis nga ko. maanaam boo gisee Ama Baldé rek gis nga baay bi. Hmm. baay bi muy nekk ci euh, nekk ci digg laa mu gis ay photos. Hmm. dégg nga xamoon am Falaye Baldé boo gisee Ama Baldé rek Falaye Baldé ngi nii. waaw man nañoo bokkoon bañ a bokk ma ne bokk ay jamono nag waaye ba tey doomi mbër la. kële nag moom. moom màgga dafa dugg rek. Hmm. dugg ci làmb fooyee ko làmb xew mu dugg ci rek ko ci wërsëg. waaw yàlla ubbil ko ci làmb wërsëg mu di ci force wërsëgam mais xam nga nit ki nag lu mu nangoo sonn tam di ci ko jox ak xam tamit bu yàgg yàlla da ko ciy wallu rek lépp lu mu mën a doon nga nangu caa sonn di ko jox ak xam la bëgg nii la bëgg mm. yàgg yàgg yàgg boo ci fooywul rek yàgg yàgg da nga ci mës a am ndam parce que eh, ndimbalu suñu borom da ciy fekk si mm. parce dal da ngaa wane ne man lii laa bëgg mm. nangu koo jox ak xam moo tax jàng boo ko joxee ak xam mu feeñ daw loo looy liggéey rek di ko soq ak xam rek ak loo ko war rek da ci fekk la moo tax bi ñu dajee kii itam yaakaar ne rek ba am ama balde jox nañ ko nees ne na ne nees jaar jaar jàll la foofu la juumee nag bu fekkoon na tam daanaan nag daanaan daan xëy na sax ay daanaan ngi ci wetam waaye ku xooloon tamit xool nees te fi mu jaar ba dajee moom mi fa mu jóge ci Jules Balde ak ñeneen ak ñooñu bu ko amee war naa tër nag xam ne ki muy bari daanul ngaaka de daanul ay ca suq de daanul ay ndaanaan la daan doon ci ama balde ku mel noonu boo ko amee boo ñëwee xam-xam yu bëri moom nag. ayca kon ñu dem ci combat bi. waaw père décortiquer ko su ko defee. ñu jéem si waat waaw ayca ngi nii suñu càmmoñ. Mhm. dégg nga jiital pied droit. Mhm. kële tamit pied droit la jiital. muy nees. ñaari pied droit nag waxoon naa la war a cee wax rek moom laa lay wax toujours mooy boo jàngatoo la naa la ko. soit kenn ku ci nekk rek am na koo xam ne tànk bi gauche Ama bi soo tegee gauche gauche moo nga koy gën a jubu nga teg droite comme moom. dégg nga ah, nees ma la tamit pour nga teg góos ci boppam moo dem parce que la plupart ci làmb du ma ne lépp nag waaye kii teg droite toujours mën a bëri droite bi ki mu gën a bëri gën a jubu mooy kii teg tànk tànku càmmoñ comme moom ki teg tànku càmmoñ waaye nga teg droite ma teg droite nga mu jubu la bariwul ci bëri bu fekkee am na tamit bariwul lu raar la ci bëri waaw moo moo tax ku ci nekk boo tegee tànku càmmoñ moo lay gën a juru parce que ñi ngay kontaagal ñi ngay foyal bëri ci ëpp yëpp tànku càmmoñ la ñuy jiital parce que tànku ndejoor moo bari wul ci bëre waaw mais nag ku ci am xel moo daal soo demee entraînement li nga mënul woor nga war di jàng parce que teg droit bi saa yu ko tegee damay jaaxal may teg ko koy teg droit di bëri ci moom comme mën naa gauche ba pare am déet li nga mën ba pare kay jot a jàng li nga mën ba pare loolu muraaja rek la mën a indi mu li arab di wax muraaja maanaam réviser rek lay laaj waaw waaye mokkal waaye li nga mënagul la moom jàng rek mooy yoon waaw acca ñu dem waaw salaama gis nga très bien voilà ah, gis nga ko jaaxal a toj xam nga loolu lan la. Hmm. loolu moo da ko dul may taax xam nga loolu ne da doon seet ndax nooy na wala nooyul. Hmm. loolu mbër dina koy def. Ah. xam nga nag moom loolu la ci wala déet mbër dañ la boole koo xam ne yaakaar nga ne yaa ko man hmm. soo yaakaaree ne yaa ko man teeyuloo mooy bëri ba balaa teey ba xam waa ji lan la indi kii xeex la indi tey wala bëri la indi. andi woo loolu xam nga loolu arbitre nga dóor rek dóor dóor mu dogale la nga mu dóor mu dogale dóor a dóor la nooy def da ngaa na tekk na ah kii kat la ma ko yaakaaroon ne wu fa kat kii kat yaakaaroon ak nooy neex na ci sama kanam kat waaye kii arab bi ma dóor nii ak li ma delloo nii kat kat kii naa teeyaat waaw waaw ne kat ne kii li ma fa moo tax euh, euh, kii waa waaw maa balde arbitre lay mu dóor bu nooyoon rek bëri bi day jeex waaye waa ji nees dafa daal jël décision yoon xam ne kii xeex lañ ne xaaral ma jéngu nag ci kawam loo tax bu xeex bi metti ñu dem gis nga dox bi muy dox ci koom ni sax bi ko waa ji dogalee dafa waroon tey waaw gis nga xoolal amaa ngay dox mu ngi léetoo gisee muy mépp mépp bi yëpp mënoon naa dox ci koom sax pour bañ a bañ am garde rek gis nga voilà gis nga kee na mu dogale ko gis nga dóor saa yu koy dogale fay waat voilà gis nga xoolal rek gis nga gis nga su dóoree rek gis nga gis nga gis nga bi mu laaw gis nga gis droite jama droite dóor gis nga voilà parce que Ama moo ko woo ci xeex bii téel foofu Ama Baldé moo ko woo ci xeex bii xeex bi mu ko woo nii nag booy bi tamit won ko ne ko man ragaluma la dégg bu dee xeex rek na bu dee reer bu kenn reeri tey nañu ànd bañ a reer yi loolu la koo dil wan ne ko tey bu dee xeex rek dàqoo ma ko bu dee fit ëppoo ma ko kon tey nañ ci dem ñu daal dem léegi nag bëri bi metti na mais fii Ama Baldé su fekkoon ne jamono yi la waaw bu tàqalikoo rek ah, war na signalé ah. léegi indi nañu règlement boo xam ne ku signalé ñaar day dagg sa xaalis dagg de mais signalé boobu njëkk xam nga boobu lan la woon liggéey bëri baaxul boo demee tak tak ngeen tàqali ko ko bañ takkul dangay ngay delluwaat sa jumaa cumukaay mel ni kuy jël benn butéel wala mel ni kuy jël benn ndombo boo fàttee woon nga jël ndombo jox ma ndombo ñu jox nga jël benn butéel boo xam ne laaloo ko woon nga laal ko am benn ndombo rek ngay jël boo xam ne bii dégg nga seere woo ko woon nga ne jox ma ndombo yooyu ñu jox la ndombo bi nga seere loolu ay stratégie la maanaam dina dina may dina may euh, coach bi nga xam ne moo nekk sa te mën a bëri nekk sa wet daal ne ah déet taxawal nag ama taxawal nag ni ngay bëri du noonu de waa jii nii boo si sikkoon ne da ngay ñàkk comme woo nga ko ci xeex ba mu defee ci xeex nag léegi indi bàyyil xeex bi te bëri d'accord nga man waaw parce que da koo cokkaas ci xeex ba ñëpp yaakaar ne xeex ko fi yónni nag léegi war na ko loolu day dellu ci wasalaale dellu ko at ci mu kaayam jël benn ndombo ne jox ma ndombo gële boo bëggee xaw taa solo mais wax ma boobu bay laa wax jox ma di nga ne nee bële ñu pour pour pour gagner du waa ji sëgg ci sa nopp nag door laa wax ne laa yoon fi ngay jaar du yoon wi de waa ji xeex la di de gis nga saa yu tuuri mu dël te crochet gauche mbele mooy laaw moytu ko parce que saa yu jëmee droite ne laaw crochet gauche bu dajeeg sa mantoon da ngay dem teer de kon léegi yow bàyyil xeex bi te bëre comme yaa ko dàq bëre dégg nga yaakaar nga yaa dàq bëre indi bëre bi ñu daal dem lool lool loolu moo stratégie bu njëkk bi léegi nag fii songo nañu jàppante waaw songo jàppante mais jàppante bi fii ne fii mu Ama Baldé voilà gis nga ko xam nga ëñ na ko taf ko doon ko plaqué si mais ba mu ko ëññee di plaqué waa ji da koo tuur mais ëññi plaqué bi dafa daf ko déséquilibré wul waaw parce que xam nga dañuy dellu si xam nga nit waxoon naa suñu analyser le passé neel action bala nga koy def da ngay déséquilibré waa ji ba pare nit su taxawee benn tànk nii maanaam taxawal tànk yi jigéen ñi wala mu taxaw taxawaay boo xam taxaw bi baaxul benn baaraam mën na ko daaneel mm-hmm. waaw mais su fekkee dafa taxaw assise bu dëgër nga xam ne ak libre taxawee fukki baaraam mënu ko daaneel moo tax dafa feeñ ak ci biir bëre bi moo tax bi muy plaqué bi dafa doon déséquilibré xëcc ko déplacé moom ba tànk ba jóg mu xam ne benn tànk la taxawee mu daw plaqué daw yëg boobu day mais doo fekk mur bu taxaw ne këcc taxaw nga plaqué daw yëg ba la tuuree da ngay dem ba la tuuree da ngay dem ñu dem gis nga xol gis nga voilà xam nga sëkk bi gis nga fii fi mu ne nii fii ne boobu bi mu siggee xam nga fii gaañ fii tàqalikool nañu parce que tëgg na ko boot bi parce que xam na ne am kii nu mu tëddee nees saa yu waa ji tëggee tàngal tàngal dalay tël tëgg mboot kon loolu am na lu mu jàng ci Ama Baldé xam na ne falaaka ji ne daw bu tëgg ko mboot ñu tàqale ko fooru nees la foor boobu moo ñëwee dootuma fa jaar waaw ñu tëgg sax arbitre indiwaat leen waaw bi leen arbitre indiwaatee gis nga bu ñu delsee xoolal foofu dootuma fa jaar parce que foofu nit ki euh, euh, bu ba doon fa jaar xam nga tax mais jii nit ki foo jaar am fa kastal warut fa jaar soo doon dawal oto tey ji dem benn secousse bu dëgër benn taux daan gisoo ko ah. waaw nga jaar fa ëllëg boo fa jaaratee doo daan boobu di nga vitesse nga fay jaaree eh, da ngay retourné nga daal ah. wàcc def deuxième bu ndaw yéeg dem sa yoon am de ah, noonu ngay daal loolu nag mooy loolu mooy yoonu bëre jaar nga foo xam ne fii mën na laa indi problème du ma fa jaar moo desee du ma fa jaar gis nga voilà gis nga xeex bi gis nga xeex bi xoolal xam nga da koo woo ci xeex gis nga gis nga bi ko woo ci xeex bi rek gis nga tey waaw kii daf ko bëgg a wan ko ne ko man ñëwee ragaluma la te dama gën indi xeexu maanaam da koo di eh, xeexu voilà xeexu ban da koo ndil waaw waaw gis nga waaw gis nga ba plaqué gis nga fii et encore di tamboor bi xam nga demul ah. Ama Baldé dafa taful carrément ci wet gi hmm. dafa bu tafoon ci wet gi ci biir bi lay toog hmm. kon mboot bi kon mbootu nees bi ci mboot ci biir bi lay toog ah. heureusement tafuwul ci wet gi waaw ñu dem. waaw ah mais du ko defal ah. parce que euh, normalement bu dee xel bu fekkee bëri la xel ah. ndeysaan papa Diagne yàlla na ko yàlla yërëm xoolal gis nga fii ne ba tey ji nii gis nga xam nga gën naa tey te na mu xeex war xam nga gën naa tey mais fii ne bëri song bi nag songum suuf moo koy jeexal nag waaw xoolal andi na pied gauche ba waaw. bàyyi waaw père fii. waaw dellu tuuti kàddu. Euh, fii. waaw jafe-jafe ci moom. bu fekkee ne boobu bu fekkoon ne pied bi moo doon dëgg ci moom. moom lay commencé bëre bi. li nga lii dëgg kay moom ngay commencé ci sa bëre. waaye boo demee ba sonn ba combat bi metti ba metti nga changé tànk boo xam ne mënoo ko kon bi nga jiitaloon du dëgg ci yow. dëgg la wala fen la. bi nga yaakaar ne moom nga mën a kay nga xam ne mooy jeexal bëri bi boobu kay nga war a jëkk a teg moom nga war a teg loolu mooy yoon foofu loolu la waroon def waaw waaw ñu daal jël songo fii ne ñuy jàppante rek mais xam nga léegi mu ngi jéem a yót loxo pour jéem ko jàpp mais ba tey mu gis nga xoolal gis nga kor bi gis nga kor bi léegi nag kor bii nag war war woon a am ñaari uppercut yooyu mu dóor noonu war war woon a am parce que li ma lay wax ni ñaari loxo la fi ne su ma la koree sama gauche yow sama droite bi da nga war xool nango nit ñaari loxo la léegi man naa doos bi léegi ban laa mën a utiliser waaw dama éliminer droite bi man yow da téye droite bi wala nga teg sa loxo fii am na façon boo xam ne boo ko tegee waaj du la mën dóor dara loolu nag am njàng loolu nag ku ko jàngulaat tamit doo ko xam boo amul ko am xam-xam ku la ko jàngali doo ko def ñu dem waaw gis nga encore fii tamit Ama bale am benn erreur def na ko fii xam nga bi mooy lan koo xam ne kii daanaka ëppoo ko doole ñaari yoon wala boo ëppantewu leen doole ay 10 kilos 5 kilos wala 10 kilos sooy bëreeg moom bëgg koo te mën koo bëri da ngay jaar ci wet gi wet gi ngay jaar doo ko ñëw en face te dafay jël toujours en face lay jël lu nees te bu ko jëlee en face wet gi bu koy jëlee a kii day mboot nu mu nees day mboot saa yu jaaree ci wet gi te calcul loolu mboot mi day ñàkk waaw nit ak lu mu mën moytu rek ñu dem waaw Hmm? Euh, waaw day déglu waaw parce que xam na ne fi ne combat bi euh, euh, Ama Baldé li mu yaakaaroon amu ko li mu yaakaar ne lay demee demee wuli waaw waaw fi ne nii moom du fa demee waaw mënoon na fii ne nag Ama Baldé waroon naa mën a may temps bëri bi te gis nga bëtt bi gis nga bëgg naa jeexal bëri bi rek waaye gis nga fii ne tey mu doon day day xale rek waaye gis nga fii ne tey jii bu doon la boo tutee xaram xol xol loxo mu ngi gis nga fi ki fi mu lëgal loxo bi nii ne ki nees amoon na làll bi voilà mais amaa ba Kewel de waru woon nangu loxoom bii waaye ñu dugal ko ci poqataanam bii da ko war a génne war na may loolu waru woon voilà gis nga loxoom bi muy génni loxo euh, nees bi gis fi mu ne nii du yoon du ko may voilà de day du mu nangu loolu gis nga loxo bii mu nangu ni ci kaw du yoon moom war a loxo waaye bu nangu nees dugal loxoom ci poqataan bi nii sol boobu ma ko sol su doon lalli ka da koy lalli rek daw tibb ko tegal ko 16 yooyu day am ci biir bëre waaye no ndax loolu mu ne na ko wala mu déet loolu moom yàlla xam waaw. waaw ah, ñu dem waaw ah, mu ngi téye ci téye yi mu ti fi mu téye yëpp daal mais parce que fii war nañu mën a bëre ba temps bi jeex mu delluwaat ci mukaayam ci lat xam-xam nag. waaw waaw parce que xam nga combat. Euh, jili combat dafa am foo xam ne boo fa tolloo. bu combat bi méttee ba métti ba waaw gis nga xoolal gis nga ko gis nga voilà voilà combat bi mu bëgg jeexal combat bi te sa condition matewu ko. waaw sa doole matewu ko léegi da ngay maîtrise bëri ba temps bi temps premier round bi jeex. bu round premier bi jeexee soo ñëwee sa biir ci mukaay nag yu dëgër yi nga takkoon te ñu jàpp ci nga di dindi ko teg de côté yooyu yëpp nga teg ko nag léegi nag borom xam-xam bi nag ñoo waxal ne la ji fii jaar du bunt bi ne fii nga war a jaaree parce que waa ji saa yoo laa tàng mu tëgg la mboot bu wala nga tàpp tàng mu defee ne mboot nga effacé bés bu kaw loolu xam-xam la dañ koy jàng waaye doo ñëw ba école doo ñëw ba kii ah gis na xoolal li mu def léegi sax jaaruwul yëkkati benn tànk bi noonu la sax jaar loolu xam nga loolu tax gis nga yëkkati benn tànk boobu dellu yëkkat tànk bi xam nga dafa fekk xam nga bi mu yëkkatee tànk bi daa fekk nees xoolal gisu ko de na nees xoolal dellul voilà gis bi mu yëkkatee fi mu yëkkatee tànk bi voilà fi mu yëkkatee dellul mu téye téye tànk bi rek voilà gis nga xoolal te te fi mu yëkkatee tànk bi téyel ma foofu demal yéen a fi mu yëkkatee tànk bi de voilà gis nga te gis nga foofu xoolal primo xoolal gis moom boppam nga génn ci kaw du yoon ki waaw boppam bi mu génn ci kaw boo jàppantee sa bopp day dugg ci biir ñu bari xamul tax duñu dugal seen bopp ci biir dañuy ragal ku leen fa dóor wala ku leen mais ci dugal sa bopp ci biir te ci ngay mën a gis taawaay ji nan la taxawee bu fekkee damaa dajalee sama tànk ci nga koy gisee bu fekkee damaa croisé sama tànk ci nga koy gisee lu ci bari doo ko mën a gis boo gétteenee sa bopp ci kaw doo ko gis dëgg nga d'accord nga ak man mais nag bu fekkee da ngaa dugal sa bopp ci biir nag dégg nga li ma la benn loxo bi téye loxo ba libre rek ngay xool mun laa dal waaw bu fekkee gauche laa téye ma calminer droite bi bu fekkee droite laa téye ma éliminer gauche bi looy am moo tax bopp day féete ci suuf nga mën a gis ci suuf bu waa ji xam nga ne bi bi mu bi xoolal bi mu tey ama maama bara kii euh, nees bi mu nee nii benn tànk bu fekkoon mu ngi suuf day plaqué tànk bi rek bës ko benn tànk am du ko taxaw du doole benn tànk amul fenn fu ñu koy taxaw mu am doole waaw. ay ca ñu dem gis bopp bi mu wàcc kaw du yoon kii tam fi mu génn bopp gis nga ko voilà xoolal gis léegi nag action bi li tax mu dem dellu dellul voilà. voilà voilà gis nga ko mu dem gis nga xam nga bi paddum paddum bi mu ko dóoroon dóor pour mu dem nag daa waroon taxaw ba pare waaw mais bi mu koy def bi muy def prise bi xam nga tax mu daanu daanaka mën naa la wax ne rek kii daaneelu ko. waaw. Hmm. nees deful action bu ko daan. de dégg ma ne nees deful action bu ko daan li ma la wax kay lu leer la ñoom ñaar bu ñu ma dégloo dañuy xam ne wax ne nees deful action bu ko daan waaye booba moom moom ci boppam dafa taxawul ba pare dëgg dëgg def prise. prise boo koy def da ngay assurer sa taxawaay ba pare. ba as taxawaay bi dëgër nga door def prise mais bu fekkee da ngaa yow nekk naa nii génn taw di sànni benn tàng di sànni jékki-jékki di ak mel ni gone gu ndaw nga yor. ab liir sax boo defee boo demee dem ab liir sax mën nga koy xale bu ndaw laa cinq ans mën nga koy jéem a def nii sax far daanu xoolal nii nii padd bi nii dem ndaxul da ngay taxaw tànk bi siir ko déplacer ko ba tànk bay jóg nga dajeek moom nga xool ba tànk benn bi jóg nga xam ne benn bi tegu na waaye benn bi teguwul nga door a calme ci ngay dem mais bu ko deful da booy def daanu moom kay li ma la loolu looloo ko daan gis nga ko moo tax waaw daanu na mais lii tam ci ku a nekk mbër am njàng la boo naree nekk mbër ci am jàng la nees tamit ku jar a félicité la parce que bi vraiment jox na ko ak xam parce que wane wu fi ragal wane wu fi ñàkk jom wane wu fi ñàkk fayda bëri décision pire ak jom ak fulla moo ko may ndam li mu am nii waaw parce que waa ji bi mu ko di xeex ci xeex bi da ko ne badar nga bëgg nag bu kenn reeri tey da ko woo ci xeex bi mu wuy ko ci mu woo ko ci bëri bi ñu jàppante ba def loolu mu ci def nag jom jooju ak fulla jooju dégg nga boo dajee koo xam ne kii dooram doole comme yow da ngay jaar ci wet gi jaar naa ci côté gauche bi mu di ma mboot côté droit bi mboot ma xam naa ne foofu baaxul dama koy jéem a orienté ba jaar ci côté gauche bi parce que c'est rare nga gis koo xam ne day mboote gauche ci mboote droite bariwul bu fekkee am na it bariwul kon léegi jaar naa bii taf amul baaxul ma jaar beneen bi loolu mooy yoon benn ñaareel ba un borom doole doo doo doo faasante ak moom ci wet gi ngay jaar waaw te ko surtout koo xam ne boo ko doole problème daa nga am moo tax combat la bu metti woon ak combat bu neex la woon combat bu metti la woon mais nees it ndam lu rëy la fi am. kii tamit euh, ñu encouragé ko rek mu góorgóorlu moo ko may tamit mu avancé waat ba ëgsi fii mu ëgsi Ama gën a defaat te gën a jàngaat nag xale la xam nga xale yi léegi léegi mën a mooy toujours dañu am benn piste wala ñaari doylu fa et puis encore di déglu koo xam ne kii neex ma ànd ak moom mbapat ba arène hmm. ma ànd ak moom nag ànd ak loolu taxul nga yokk nit ki xam-xam xam-xam da nga gis ko wuti nga wuti ko ci ko am xam-xam mu jàngal la ne dellool ma woon la mu ne def nga erreur bi waa ji defee nii war woon def lii bul defee nii nii nga a def lii ëllëg bul ko mayee loolu mooy yoon waaye bu fekkee nit dafa def ba pare nga naan ko woy moytul jiili jiili ma jaar fële biteel boobu mu indi woon waaye diw di dégg naa wax nangam di wala xeex di wala nangam kan moo lay xeex wala dàll wañu sàccoon wala dañu sàcc sama ngem wala dañu dema def ne wala sama mbaxana la yooyu yëpp daanoon mbër mbër day def erreur daanoo erreur ba mu daanu da ngay ut koo ko jàngal ne erreur bii lii la te loolu yaa ngi koy préparé ci entraînement ya ci entraînement ba ca ngay teg jàng adversaire bi lii lay def waaye bu defee lii lii ngay def yow nag sama nin lii la waaye lii boo waxee ni fexeel ba bu la kenn yóbbu ci lii loolu mooy xam-xam loolu ko ci deful tey fi ngay daan ak fi ngay daanoo kenn du ko xam te daa la wax li jëli de mbër mi mënta bëri fi muy daanoo fi muy daanoo kenn ko xam waaye ki mën a bëri te mën a bëri dëgg doon daanaan jekk ko taxul nga daan ko maa la wax téere laa la wax kay. jërëjëf Père Birahim ma lay jaajëfal. bu baax ah. a baax a baax Père. ma lay jaajëfal bu baax jërëjëf. Hmm. Euh, di ko di di leen jëfalaat bu baax a baax mbokk internet yi. Hmm. di jaajëfal borom blouson bi nga xamante ni. Hmm. Euh, Demba Thiam borom Italie doomu nday Cheikh Diouf ak Angleterre moom moo fi génnee. ma koy jaajëfal bu baax a baax a baax. sama waa jooju Pierre ma lay jaajëfalaat bu baax. ah waaw waa ji da ngaa yaakaar ne xam ma gone yi rek ñooy sol blouson. Hmm, yow tamit da ngay ah, gisoo sama blouson yi ma fi indi waaw gis naa rouge boobu ak blanc boobu ma Issa Diène yónnee woon ci hmm. hmm. Amérique. maa nag maa dem ba Amérique nag mu wutal ma ko ba mu doy. ah man yow nag mu nga dem Italie indi indil ma. maa dem indi ko. ah man de damaa dem Amérique indi. waaw ah yow tax doo dem indi. Ah, man de bi ma demee fukki blouson la ma yenn ma ñëw sol ba doy maye ba doyal. jox Fallou soo jox naa ko ci. Ah. Fallou bi ma ñëwee. Uh-huh. maye Barça laa ko jox. ndeysaan ndeysaan waaw ah, nee na ma jox ko maye Barça. waaw mm-hmm. ah, Fallou sa gannaaw. kon Demba xaar ma dinaa ñëw Italie incha allah rabbi. waaw Issa Dieng nag moom it waaw man di père waaw waaw Issa tamit moom di booy bu baax moom dinaa jox nga xamante moom sa xale bu baax. maa ngi koy di nuyu Ndaw Ndoye ak soxnaam ñëpp. Mm-hmm. di nuyu Fallou borom ceebu ceebu ajuma bi. ceeb bu dijj bi waaw ceeb bu dijj bi moom moo ko commandé de man commandé ma ko boo fexee la tax njóobeen yi dugg si suñu site bi duñu tool mu tax deet loolu tax njóobeen yi ma fee ni problème waaye fàllu mooy laajte mooy toggaloo jabar ji ceeb dijj bi ah, naan ko ceeb biraayam bi déedéet ah, moom Michel ah. seen ceeb la moom Michel dégg waaw da non daf maa yem di ma ko tuddee rek waaye dëgg da la mu cey jëf moo Michel man defuma ko ceeb <laughs> ah man c'est rare sax